combat Balla Gaye Bombardier loo ci wax. man mu suma mbër la falal Balla Gaye mhm. combat boobu laa gis ah. Mhm. Bakk Sën Fall man bi laa gisee. ndóobu këpp laa gis ndóobu këpp. dóomu gis. xanaa Bombardier moo doo Balla Gaye mu daanu. déedéet Balla Gaye laa faral. waaw moo ko daanoon de. waaw. baax mu ñu ñëwaat bi paa. ñu koy juutal. Balla Gaye. Balla Gaye gis nga Bombardier ni mu waaw. baax na. est-ce que xam nga ne du ko laal ak Balla Gaye daanu. waaw moom. te bii paa Bombardier nee na da koy dóomu daanu. déedéet tey waa Mbuur. waaw. ñooy jooy. <laughs> waa Mbuur ñooy jooy. waaw. lu tax ñuy jooy xanaa bu bu bu Bombardier dóowee Balla Gaye mu daanu seen xol day sedd. déedéet. man. waaw. Balla Gaye man. Balla. yow da ngaa tiit de. déedéet. de da tiit kay. yow Balla Gaye Bombardier nga nekk fii di di yàggal nii. ma saako wekk nga xam naa ko. non yow da ngaa fan moo tax nga fi nekk di wax nii da ngaa fan Balla Gaye. gis nga ko ni mu toll ni mu ngandee pa pa moo ëpp fuuf ëpp ko doole est-ce xam nga loolu. waaw joo. Balla kii Balla ak kii ak Lac waaw. sama mbër la Lac Rose sama mbër la Balla Gaye sama mbër la Bodacar bii sama xarit la ah sama mbër la ah. ah. ah. kii on le feu on le day jël ne xam naa xam naa wa ndakaalu bi siflee ah mbàkk sim fa laa wax ah lu ko dóomu dee waaw